c'est que Macky moo ñu ne ñu dal bi campagne bu mu nekk def dans les quarante cinq départements euh, recevoir na maire yi recevoir na président département yi recevoir na homme politique yi nee na ku nekk nga dal ba résultat officiel yi euh, génn fii Tambacounda quatre vingt quinze bureau de vote moo am fii quatre vingt quinze de vote yi parti bu nekk am na benn représentant de bureau de vote bu lay représenté parti bu nekk euh, si centre yi am nga benn mandataire bu lay représenté parti bu nekk am nga benn plénipotentiaire bu lay représenté représentant bureau de vote yooyu ñoo jël résultat yi un à un chaque parti a à la sortie du euh, bureau de vote bi am na résultat Sénégal dafa dépassé heure bu ñuy manipuler PV yi lu ñu mën a xam lu ñu lu ñu mën a dégg mooy Macky Sall fal nañ ko dès le premier tour au Sénégal le 24 février deux mille dix neuf